bismillahi rahmaani rahim wa billahi tawfiq alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa usalli wa usallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa man walah jamaat islah bayn nas assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci ajjuma ji di leen ñaanal jàmm ak sutura di ko ñaanal fu julit mën a nekk ci àddina rawatina ñu nekk ci ardu isra mi'raj muy waa Palestine mu mel ni yéen a ko gisandoo lu toll ñeent ci ay doomi palestinien yoo xam ne ñàkk nañu seen bakken loolu ministère de la santé palestine moom moo ko wax waaye ci kaw loolu sa ngeen ànd ceeg ki nga xam ne mooy Lays Jaxaar di correspondant bu Al nekk leen foofu ci muqayamu Jenin mu mel ne béréb la boo xam ne Israël daf ko gaw ci bombardement yooyu ci lañu gis mat ñeenti doomi palestinien daal ci ñàkk seen bakken mu mel ni ba lañ gën a gëstu vidéo bi dina def faram fàcce ci mbir yi naka la demee euh, barnaamijul axziyatil aalami ñi yor programme alimentation alimentaire mondial maanaam ñi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu dundinu doomu aadama ci lekkam ak naanam mbootaay googu nga xam ñoom ñoo ko jagoo ci àdduna bi ñoom ñooy wattandiku ne lu tolloog million ci ay doomi Palestine mën nañ jàkkuwanteeg ñàkk am lekk gu baax suñ ci gaawul fagaru ba tax na ñoom ñu ngi woo àdduna bi ni mu gën a gaawe ñu jotal seeni ndimbal ci béréb yooyu la nga xamante ni foofu la loolu xewee lu mel ni Gaza ndax loolu nag dara waralu ko dul xew-xew ya fa nekk ci wàllu xeex moo tax ñoom nee nañu daal bu ñu sañoon lépp lu mën a gàllankoor ndimbal li ñu daal di ko fay jëlee ba ndimbali gën a yegg fa nga xam ne sax mu gën a sori lu mel ni Karim Abou Salim mu jaare ca bunte daal di yegg kon jàpp leen ne ñi nga xam ñoom ñooy PAM PAM mooy programme alimentation mondiale moom mooy mbootaay bi nga xam ne moom la ko mbootaay xeet yi dénk maanaam mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu lekk ak naan ci àdduna bi ñu koy tuddee PAM programme alimentaire mondial ñoom ñooy wattandiku Kine mën na am jigee ñaari million ci ay doomi palestinien mën nañ jàkkuwanteeg lekk gu bon buñ ci gaawul fagaru ba tax na ñoom ñu ngay woote lu mu gën a gaawee ñu jotal ndimbal yi buur wuti yooyu la bérëb rawatina ba yegg fi ñuy tuddee Karem Abou Salim ngir que nit ña mën a bañ a jàkkuwanteeg loole nga xam ne moom mooy ñàkk am lekk gu baax kon nag jàppaleen ne loolu ni ki waa PAM ñoom ñoo ko muy programme alimentation mondiale muy euh, mbooloo mi nga xam ñoom ñoo wékku ci mbootaayu xeet yi te yëngu ci wàllu lekk ak naan rawatina lekk gu baax. Rajab Tayyip Erdogan président turc nee na wallaay euh, suuf soo xam ne boo fa demee da nga fekk ca garawaaya maanaam lu toj ba te tasar boo ko doon gëstu ci suufam daanaka da nga gis ne lu tollook fukki junni ak juróom benn ci xale. ñoom ñàkk nañu seen bakken ña nga ca suuf sa mu ne na béréb bu mel noonu nag dëgg-dëgg <laughs> beeñ boobu dafa war a nekk beeñ boo xamante ni communauté international bi ñoom ñoo ko war a moom tax dañoo wane na ñoom ñàkk nañu seen sañ-sañ ak seen mën-mën ci mën a detteel Israël ak na ko téel sa loxo ci ñaawteef yi donc kon jàpp leen Rajab Tayyip Erdogan na euh, foofu nga xamante moom mooy fa Euh, décombre yi muy beeñ bi nga xamante ni muy sën bi nga xamante ni tey moom moo euh, tukkee ci bombardement yi nga xam ne moom la Israël doon def foofee ci Palestine te ñu mën faa nemmeeku fukki junne juróom benn xale yu fa ñàkk seen bakken te loolu di firndeel ne ñi nga xam ñoom ñooy ñu yor dogal yi ci àdduna bi moo xam nation générale wala communauté wala cour international pénal international ñoom ñëpp dañoo ñàkk seen sañ-sañ kii mën a teg téye loxo Israël boobule bi rek war na nekk saa su nekk gàcce goo xamante ni ñoom dañuy jàkkaarloo ak moom. xibaar bi nekk na xibaar yi nga xam ne xibaaru bitim réew la waaye saa su nekk dafay am nag njeexitalam ci ni mbir mi di doxee foofe ci àddu Isra wal Mihraj muy ci Palestine. fii mooy Grande-Bretagne moo mel ne ñi nga xam mooy parti du travail bi dañ doon def élection ak parti démocrate bi nga xamante ni ñoom ñooy nekk di jongante ñaare ci réew mi mu mel ne nag parti démocrate parti du travail ñoom gagné nañu ñoom nag eh, dafa mel ne ci jamono lu yàgg lañ gëjoon ci nguur ga jamono yi eh, xaw ma nu koy waxee Tony Blair nga xam ne ñoom nag ñu bari pexe lañ. waaye tey aksi waat nañ ci euh, li xam ne moom mooy nguur gi mu mel ne sax léegi Europe dañu gis ne ñu demoon ci guerre Palestine bi yëpp ñu ci bari ñu la weddi dañu leen a wàccu commencé jël yeneen i xale yu ndaw pour teg ko ci seen i place kon nag bu ko defee ngeen yëg ni kon parti du travail moom moom du mën a parti démocrate foofee ci élection yi amoon foofee ci Grande-Bretagne di leen fàttali tamit ki nga xam ne moom mooy euh, parti bi nga xam ne moo nekkoon Mauritanie muy président sortant bi moom it aussi jàppale na moom moo gagné rivaayam Biram Labit Biram Labit nag ak ay ñooñam doon nañ manifeste ci bu yàggul ba ñàkk fa ñetti bakken ci loolee na ndax police bu Mauritanie ñoom ñu leen daal di jël tas mbooloo ma ci donte nag ñoom dañu woote woon li nga xam ne moom mooy marche pacifique maanaam dox ci jàmm pour bañ a nangu li nga xamante ni kat moom lañu jox résultat euh, gazoine résultat bi yooyu daal. la ñoom lañ lañ doon constaté lañ doon bañ ba loolu tax na seen ñaar tamit seen i bakkan foofee tamit ci Kenya mbir mi dalandi dina ginnaaw bi nga xamante ni yëngu-yëngu yi bari na lool ba daal di yóbbu ëpp fanweeri bakkan ci manifestation yi nga xam ne ñoo fa amoon ci mbirum maanaam li eh, réew ma doon jéem a def muy président bi doon laal wàllu budget bi ak yu ni nga xam ne newloon du lu benn askan bi fii ci Sénégal nag démb lañu nemmeeku bakkan yu bëri tuuru nañ ci immigration bi nga xam ne doon nañ ko def jóge côté Niodior bay nee nañ côté Ndiago lañ leen lañ ko arrêté muy ci côté Saint-Louis waaye li ci daanu ci bakkan bëri na trop trop rawatina ci ay Gambien mais dañu nemmeeku ci semaine bi dëgg dëgg dëgg Sénégalais yu bëri ñàkk nañ seen bakkan ci géej gi loolu tam ba léegi muy gën findeel benn désespoir maanaam ñàkk yaakaar bu jeunesse africaine ñàkk yaakaar ci seen réew kon jàpp leen ne immigration bi mu ngi gën a métti rawatina nag dañ koy seetlu ci jamonoy nawet kenn xamul lan la mar bi jib si waaye daal démb li faatu bëri na trop trop ci côté njaagu foofa ci Saint-Louis un virgule un milliard de dollars moom mooy euh, lim bu takku ci wàllu xaalis bi nga xam ne waa Israël daal di nañ koy def ci li nga xam ne pour am li ñu tuddee armée nucléaire maanaam armée nucléaire bu ñu la koy ay armée la yoo xamante ni doole yi nag bokkut dañ gën a gaawante gën a ëppante doole waaye armée la yoo xamante ni yu sophistiqué la yu mën a gaaw ci faagaagal la daanaka sax dañu ay xeeti xeet daju ci ñoo ci am am na ci yoo xamante ni mën nañ jël bakkan yi bàyyi fa bâtiment yi yoo xam dañuy boole yëpp bàpp waaye daal fépp fu ñu jaam moom bakkan luy nooy doot fa taxaw Israël daf ci financé mat un milliard de dollars boo xamante ni moom la financé te daan bañ bokkoon nag ki nga xam ne nag wax dëgg yàlla dañ doon bañ yeneen réew yi am ko lu mel ni Iran lu mel ni Pakistan yeneen yeneen réew yi arme moom c'est pour guerre boo xamante ni nucléaire mu ñoo ci am du nit ñi may tiire ndax nit pour nga tiire ko dafa bari ay risques ndax risques yi bokk na ci nga xamante ne tey yi Israël ni mu nekk biir Palestine tey bu ko woon a jëfandikoo tey ci béréb bi mu ko mën a jëfandikoo yëpp li muy def li muy yàq ci biir réew moo ëpp li muy yàq biir plastique bi kon nag mbirum xoqatal la waaye loolu moo waral am na ci réew yoo xam dañ ko am ngir xoqatal am réew yoo xamante ni aussi am giñ ko am parewul dafay mel ne rek am nañu moyen pour am ko foofee la ñuy xaw a tiitalaate am ñoo xam ne am nañu béréb bi waaye béréb bi ni ñu ko war a exploité ko waaye moom jàppale na lu mat un virgule un milliard de dollars Israël financé na ko bien sûr ci ndimbalu américain ngi koy jàppale pour am li nga xam ne mooy arme nucléaire Clijsters moom mooy ki nga xam ne moo jiite parti du travail bu fële ci Bretagne moom moo gagné léegi tey moom mooy euh, premier ministre bu Grande-Bretagne moom mooy Clijsters moom ndax ñoom seen parti moom moo gagné parti démocrate bi nga xamante ni ka fa nekkoon mu ngi doon jàppale lépp lu mën ci Israël ak di leen dooleel ak di ci def ay pro donte nag ñoom ñëpp alkufa ala milatu waahida ñoom ñëpp benn agenda lañ am. mooy fexe ba kéeféer féeti kaw li nga xam ne moom mooy diine ju sell ji di la waaye du teel ñu xamal leen ne ñoom am nañu beneen euh, euh, première muy Chrismar muy euh, nekk njiit bi nga xam ne moom mooy jiite parti du travail tey moom mooy premier ministre bu Grande-Bretagne ñoom nag xam ngeen seen régime ni mu demee seen premier ministre daanaka ñu am doole président ak tolluwaayu président ndax daanaka lu bëree bëri ci réew mi ak bitim réew ci seen loxo lay nekk. Joe Biden di président États-Unis d'Amérique dañ ko ne yow mëno présenté wu waaye dana présenté wu de ndax neen daal du bàyyi lu tolloog catal we catal we ci taxawaayam neen du ko bàyyi ci ñàkk mën a dem def li ñuy njëkkante pour mën a amaat daagaanaat baatu askanu États-Unis d'Amérique pour nekkaat président moom daal ne li mu soxla rek mooy mën a nelaw bu baax noppalu bu baax rek jugaat ci campagne bi kon ñu jàppoon ne góor gi dafa màgget ba dina bàyyi loolu koy boobu teg ko ci suuf ndax Joe Biden ne lu tolloog bën bën we lu tolloog catal we ci sama taxawaay ci war a mën a jóg dem nag ngir amaat baatu askan bi nga xam ne mooy États-Unis d'Amérique ne leen loolu du ma bàyyi donc li ma aajo war a mooy lekk ba suur nelaw noppal rek jugaat ci campagne yi kon nag ci parti muy waa parti démocrate ñi nga xam ne doon nañ jéem a seet keneen ku ñu tabb ngir jàpp ne moom wéram du ko ko may wala boog màggataayam booy tax moom nee na lu tolloog catal we ci sama taxawaay changé wul ci war a mën a doxaat nag ngir daagaanaat baatu askan bi ngir nekkat beneen président am deuxième mandat foofee ci États-Unis d'Amérique ñoo ne démb am na ay missile yoo xamante ne dóor nañ ko ci seen base militaire bi nekk foo foofee ci càmmoñu Palestine kon waa Hezbollah la moo tax waa Hezbollah ñoom wax nañ ne daa iman dañ taxaw ci dëgëral ñi nga xam ne mooy Palestine ci ñu gën a mën a jàmmarlu foofee ci Gaza seen dëgëral googu nag dafa fekk si na ñoom ñu ngi koy dëgëral ay jàmbaar ñoo xam ne ñu tedd lañ ñoo xam ne tey danañu taxaw tey bépp agression boo xamante ni ak jalgati boo xam ne yahut yi koy def ñoom ñu ngi taxaw rawatina ci seen dëkk yooyu le kon ñoom jàpp leen ni seen dëgër seen ñoom ñu am dëgër laayu ñoom waa waa waa Hezbollah ci dëgëral ñi nga xam ne mooy waa Gaza loolu ci programme boobu ñoom la ñu nekk di def lu ne pour toroxal nga xam ne mooy soldats israéliens yi moo tax démb Hezbollah lu toll deux cent missiles ci ay xeet yu wuute la tumbal fi nga xam mooy côté Jalili bi Israël nekke ak Golan Golan benn béréb la bu nekk ci Syrie te Israël nangu ko jàppale ne yu Israël yoo fa nekk ci ay militaire démb Hezbollah séddale na leen ñaar téeméeri missile yoo xam ne tëmbal na ko jëmale ci ñoom ci loolu sax nag ñu ngi wax ne ñoom waa yahudi ñoom ñoo ko ñoo ne courant bi dagg na tamaaman foofee ci Golan muy benn plateau Golan muy montagne yooyu nga xam te Israël moo ko nangu ci Syrie ginnaaw songu missile yooyu moo jóge biir Liban jëm ci ñoom kon jàppale démb ñaar téeméeri obi ak ay ak ay missile la eh, daal di séddale ñaari wàll yi nga xam ne fa la Israël teg tànk muy côté càmmuñu Palestine ak côté Golan ca siri ñu yóbbante leen ay missile yu am am jom yu toll ci ñaar téeméeri missile yoo xam ne tëbbal nañ ne ko ci seen benn camp militaire bu nekk foofu tamit daal di koy rajax kii ak xarit xam naa bi dañuy taxawandi fii ci xibaar yi du ñàkk bu ñu amaatee beneen jot danañu dellu si mottali li nga xam ne moom moo ci des d'ici là ñu leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura di ñaan borom bi subhaanahu wa mu dooleel mu jaahidoon yi nekk ci àddu Palestine waaye mu andi jàmm ci bépp goxu àdduna bi rawatina foofee ci Soudan jàmm ci suñu réew andi ko ci fépp yal na yàlla defal jàmm defal ñu sutura jàmm ak jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lii tubaab naan défense aérienne maanaam jañaxu ci wet ci kaw jaww ji ci côté càmmoñu Palestine kon yahud yi ñoom ñoo fa nekk maanaam la ñuy def ba jañax yi nga xam ne waa Israël waa waa gars yi ñu ngi leen koy sànni muy waa Hezbollah loolee démb feeñ na ci seen dëkk bu di Kiryat Shmona ak yenn colonie yoo xam ne ñoom ñoo ko wër mu mel ne démb nag taxaw nañ ci côté Kiryat Shmona ak euh, yenn dëkk yi ko wër démb ñu woon ci tiitaange goo xam ne tiitaange gu doo gu am doole la ndax missile yi doon jógee Hezbollah di wàcc seen colonie yooyu bay dugg sax ci seen bërëb yi nga xam ne ay bërëb orphelinat la ay bërëb yu refusé la woon daal di fay làqu ak yenn espace yoo xamante ni dañ leen koo jagleeloon yenn béréb yi ñu leen jagleeloon pour ñu mën fa làqu teewul démb missile yi fekk na leen fa <clears throat> moo tax démb gis nañ daal wote yéene kaay bi sax nag day daal yuuxu ci foofee nga xam na mooy ay bilit ak euh, foti côté bi ñu xasaaxir ngir gis ne daal avion drone yi nga xam ne ma ngay jóge foofee ci euh, Liban di tàbbi ci seen kaw kon démb waa Kiryat Shmona dund nañ pëccëg yu méttee métt ndax béréb yi nga xam dañ fa làqu woon sax nag missile dañ leen fa doon fekk ak ubbi yi fa Israël nee nañ démb ñoom jàkkuwante nañu dëgg dëgg dëgg ay ay ay yu am doole foofu ci càmmoñu Palestine mu mel ne tax nee nañ sax mooy li gën a yaatu ci song bi nga xamante ni dëgg-dëgg eh, waa Hezbollah songaat nañ leen ko ci bërëb yu gën a yaatu gën a dëll ci ni mu leen ko songee kon mu mel ne kon mooy béréb yi nga xamante ne tey ji diggante Golan ak fi nga xam ne mooy càmmoñu Palestine nee nañu song bi gën a yaatu gën a dëll gën a tasaaroo nee ñoom waa yahudi nañ démb moom lañu ñu am ci kii ci te mooy ñaar téeméeri ubbi yoo xam dañ leen ko séddale mu daal di mu fees dell ci ñoom ngir nag ndax Hezbollah waxoon la neen suñu nit ki ngeen ñu reyal bu ñuy fayu nañ fayu fayu bu métti métti léegi kër yéenekaay yi wax ne démb daal li nga xam ne mooy wata yéenekaay bi daal mu ngi doon doxantu ci foofee ci càmmuñu Palestine ak côté Golan ginnaaw bi nga xam ne yi nga xam ne eh, Hezbollah songee nañ ko ci jaww ji muy song gu yaatoo yaatu ba léegi këru yéenekaay yi nee nañ lu toll ñaar fukki juróom ci ay avion ñoom ñoo pëtax lu jóge ci eh, asamaanu Liban bi doon jëm ci seen colonie yi nekk foofee ci biir ba léegi ñoom nee nañ daal song avion yu drone ak ay missile yoo xam ne ngay jublu côté bi naan Galilée ak euh, Grand Galilée ak Galilée ouest foofu yëpp yahudi ñoo fa nekk ne loolu lañ nemmeeku démb donc neen daal ci fanweeri minute la Hezbollah doon tëmbal ay missilam ak avion duróonam de ko jëmale ci béréb yi nga xam fa la yi nekk jàpp leen démb ay jàmmaloo yu metti am na ginnaaw euh, foofu ci mu xayam Chaboura ak foofu ñuy tuddee dawaar nag ma ci digg dëkk bi ñu Rafa ci ndeyjooru Gaza beneen wàll tam gis nañu li nga mooy force israélienne yi muy yahut yi jëw a jañaxu dem ci fi ñuy wax masjidu xadara ci xaar yaa simia ginnaaw ba ñuy jéem a dugg foofu ci Nablus kon gis ngeen mu ngi noonu Kataibul Qassam seen contingent bi nekk ci Tulkarem démb song nañu ay yahut yu doon dox di dem foofee ci dabaaru saabit saabit loolu xam ngeen daal dal seen kaw loolu tax na mën nañ ne sax daw jëppit ginnaaw bi nga xamante ni euh, jàmmaar nañoo jullit ñi niki noonu démb si nemmeeku nañu ay obi ay missile yu ñu dóor ci côté penku bi ci dëkk bi ñu xam yanus yahudi ñoom ñoo fa jaar niki noonu am na ay matériel yu yahudi yu ñu gis démb ñu doon potaxlu ci bërëb yu mel ni fat fatayar ci jabulu tuur ci Nablus loolu tamit nemmeeku nañ ko ñu nemmeeku tamit yeneen song ci wàllu muqayam bina ak côté fi ñu tuddee dawru awda ca digg dëkk bi ñu wax Gaza ni ko doon tamit démb gis nañ safara su bari di joy di dem ca foofee nga xam ne moo tudd ci xayu sax foofu yëpp gis nañ fi ni ko doon tamit démb gis nañu songu wante bu métti ak jàmmaarloo boo xam ne fu ay tool yaa ngi doon dégg na bale di dóorante ak nañuy exposé ci diggante jullit ñi ak ñi nga xam moom mooy yahut yi rawatina ci béréb yooyu nga xam ne mooy Euh, Naxma ca dëgg dëkk Gaza këru yéenekaay ya nekk foofe ci Liban ña nga naan avion yi nga xam ne yahud yi ñoom ñoo ko muy avion guerre yi démb doon nañu ñoom doon sànni ci jaww ji ñoom itam doon nañ jéem a sànni ay ay ay bell di ko jëmale ci ndeyjooru Liban waaye ba léegi ñoom wax nañ ne foofu ci Kiryat na ak dëkk yu ko wër tàng na lool muy colonie yi nga xam ne Israël ñoo ko moom ñu ne daal démb explosion yi ci ci ci jaww càmmoñu Palestine mooy fi nga xam ne fa la Israël nekk ginnaaw ba ñu nemmeeku ay missile yu taratar jógee foofee ci Liban ci loolu sax nag ñu ne nag eh, Israël ma ngay reconnaître ñaari officier yu mu deele ci boobu moom beneen wàlla ci song gi mu doon songu démb ci foofee ci Gaza ñaari officier yoo xam ne rey nañu leen waaye waxul nag nombre soldats yi ci dee ak naka la ñu dee ba léegi tamit Israël joxewul benn bilan ci missile yi nga xamante ni waa Hezbollah yónnee nañ leen ko ba léegi benn songo boo xamante ni song boo xam ne dafa daal di tegloo muy xujoomu mu rakkab moo am ci waa Hezbollah lu toll ci trente minutes ci leen dóor ay missile missile ak ay avion drone jëmale ko ci ay euh, ay jubluwaay yu wuute ci Israël ci loole sax na gis nañu bërëb yu baree bari démb waa Israël ña nga doon daw di fatu ak di seet ñuy def mu nekk ay bërëb yu doy doy waar yoo xamante ni doy na wax topp kon jàpp leen ne Hezbollah ci lu toll trente minutes daal nay lancé obi yu bëri jëmale ko ci ñoom nee nañ ci njëlbéenu mbir mi ñi nga xam ne mooy sax euh, woote seen woote yéenekaay boobu mu ngi woon ci biir colonie bi ñu téye Eylenia fa jigéen Nasira di ngir nit ñi watandiku ni kon démb jàpp leen kon euh, teewul tamit ñi nga xam ñoom ñooy yëxut yi démb doon nañ jéem a tànnal ay jum doon nañ sànni ay jum ci asamaan si ci côté Galili ak Golan ngir jéem a xeex ñoom itam waaye jàpp na Hezbollah démb tëmbal na ci ñoom ay missile yoo xam ne dëgg-dëgg mooy boog xeex bi amee ba léegi lam fa tëmbal démb mosu koo tëmbal ci yaatuwaay bi ak dëlluwaay bi ndax lu tollook ñaar téeméeri nga séddale ko gox yi nga xam ne fa la yahut yi daal di campé ci diggante Golan ak foofu nga xamante mooy Galili waaye gis ngeen li mu ci ñoom Kataibul Mujahidin ànd ak Saraya Quds démb song ay matériel israélien daal di dal seen kaw ni ko noonu euh, journaliste bi di Tamir Mishal ma ngay wax ci compte Facebook am ne band maanaam euh, lëkkaloo maanaam ay waay waay waay wolof daal des ko war a jàng rek maanaam pacte bi nga xamante ni moom moo tukkee ci négociation yi muy waxtaan bi nga xamante ne moom moo dox ci diggante yahud yi ak jullit ñi ci naka la fee ba trouver jàmm mu ne pacte boobu mat na ci wàllu wi nga xam ne moom ci fan yi di ñëw balaa yàgg di ngeen gis mu ne dañ yegg ci dëpp moo xam euh, ba yu bari doon am daal dana daal di dañ niki noonu buñ damee ci beneen këru yéenekaay ci waa almayadin mu ne Hamas mboolem réforme yi maanaam maanaam maanaam coppite yi nekkoon ci këyit yi nga xam ne moom mooy wu mujj bi mu jébbal Israël nee na loolu nga xam ne te mooy dafa newoon Israël mboolem yoo xam ne dañ ciy dëppoo du laal euh, la nga xam ne dëgg-dëgg xaatimoo bu waroon nañ ko mën a xaatimoo te mu nekk cosaanal yëf yi maanaam xadaaya joohariya kon question fondamentale yi dara mënatu ko soppi te mooy ngeen génn traitoire ba jeex fa tag mu am retour des refusés ñu bàyyi ndimbal daal di dugg loolu moom a bokk ci coppite këyit woowee Israël jot na ko démb ci Hamas desal gi mu desalaat loola ak gën a dëgëralaat taxawaayam ak ne li ñu bëgg moom mooy li ñu tuddee wax fa itlaaqu naari daayim mooy euh, xeex boo xam ne dafay arrêté ba faw muy def cessé cessez-le-feu boo xamante ni day dem ak ngeen jóge foofu ngeen xam ne fa daal di pëtax lu yéen yahut kon jàpp ne këyit googu nga xam ne dañ ko jébaloon Hamas pour ñu def ci yenn coppite yi ngir ñu mën a gën a mën a waxtaan Hamas bañ ko delluwaatee ñi nga xam ne moom mooy waa Israël xamal ni li ñuy di alqadaya jawhariya muy question fondamentale yi moom kooku c'est intouchable kenn du ko laal te bokk na ci question fondamentale yi moom mooy ngeen génn ki traitoire foofee nga xam ne moom mooy traitoire Palestine ak li nga xamante ni ngeen bàyyi ndimbal li mën a yegg fu nekk yooyu dafa bokk ci question fondamentale yo xam ne waa Hamas journaliste bi di Tamer Masral moo ko doon leeral ci compte Facebook